population rôle am mooy pour alerter nous sommes des chiens d'alerte mm-hmm. pour éviter suñu réew mi moo am ay catastrophe pour réew man su ma sañoon benn doom doomi Sénégal du gaañu parce que lu ma leen waxoon toute prise de conscience égale action bu fekkee ne sénégalais yu nekk xamoon nañ ni coow Adji Sarr bi ay tappale la ay foola la du mujjee fen dañ koy classé kon kenn du dee donc dama ne puisque man sama role moo nekkoon ma artu sénégalais yi man leen moytu leen ndëgëm fukki bakkan ñëw na ba des mm-hmm. am na ay nit am pagaay ñoo xam ne gaañu nañ ci kon man dama lajj j'ai pas accompli ma mission. Mhm. deuxième chose jamono yi loolu daaw la woon ñu ñëw ci reen encore gannaaw bi ma leen lu ñu ne Babacar Touré lu mu ñu wax daaw ba reen yëpp gis nañ ko donc nee nañu Babacar Touré reconnaître nañ ko sérieux na li muy def da ci da dafay sacrifié wu. Mhm. su ma taxawee ba ma yegg si loolu tey xew-xew jot encore. ma ni leen def leen ni def leen ni boo yi ne ma non yow noppil ñun ko ñu hmm. a yàqule a hmm. naan kaay ñu xeex la àndal ba boobaa mu taxaw seetaan. kon du ragal mais c'est pas waaw man man euh, Sidi bi ñuy tàmbali wax naa man fu ma jógee. Mm. cest à man su ma gisee dëgg su ma ko waxulee damay feebar. Mm. man su ma gisee dëgg. Mm. su ma ko waxulee damay feebar. sama yaay sax bu jotewoon ak nit bu tooñee. bu ñëwee ma ne ko dama ko naan yaa tooñ. amul amul far amul far ci li ngay def man sama waa kër ngaa def benn investigation boo xam ne c'est en faveur de l'État est-ce que mës ngaa génne loo xam ne. Euh, journaliste en tant que journaliste d'investigation je je pense que. war na am war na am benn investigation. boo def boo xam ne c'est favorable par rapport à l'État. man bi ma taxawee ne Macky Sall complot bi bokk ci du man maa ko fi wax. yëgu. yëgu ko daf ko bëgg ñu récupérer après maa ko wax. yaa ko njëkk a wax. en maa ko njëkk a wax bu ñëpp naan Macky Sall Macky Sall moo ci nekk. ma ne mhm. Macky Sall nekkul ci yëgu ko. Mhm. mu ñu ne état la ma ne bu état nekkoon da koy préparer de sorte que Ousmane Sonko du génn ci salon bi. Mhm. flagrant délit la. mais en parallèle ci li Pape wax foofu. bu boobaa bu baal ma tuuti rek bu boobaa. dañuy préparer ay gendarme ñu wër salon ba bu ñu ko préparer woon tëgg ko xam nañ période de couvre-feu la xam nañu période de couvre-feu mënoo dugg ci kër pour jàpp nit mais en flagrant délit mën nga jàpp nit ci mbedd bi mhm. bu ci tëggoon man man Babacar Touré bu ñu ma laajoon pour ma tëgg ko Adji Sarr dama ko naan bàyyil waa mu ñëw ci kër gi di maase bu ñëwee maase rek si meeku yuuxu ne daf may violé nga ubbi buntu bi nga daw si mhm. Adji Sarr bu ubbi buntu bi daw si wooy daf may violé gendarme yi ñu dugg ne Ousmane Sonko boobaa yéen lan <laughs> euh, mhm. lan mais complot wala résistance gars yi ñu def ko comme ni ñu defee Bougazelli ñu filmé ko ñu ne leen film waa ngi nii kan mooy wax. mais a wax. il y a un complot qui est ourdi par euh, par euh, Mamour Diallo ko exécuté parce que il s'est renseigné par sur le sur le droit sur le plan pénal laaj na consulté na ay nit waxoon na ay nit waa ji dinaa ko noppiloo ñu bëri ñoo xam ne wax naa ak ñoom dañ ma ne dañu foog ne sur le plan mystique la koy noppiloo mais ñun mosuñu xalaat ni lii lay def. dafa woo ay ay ju dafa wóolu ay ay ay compte ay proche dañu woo ay juriste laaj leen ñu wax leen ni il faut moom certificat médical pour viol il faut moom certificat médical de de sept jours mais deuxièmement il faut ngeen def frottis donc c'était préparé nee naa leen am ngeen benn journaliste boo xam ne boo amoon tuuti flair moo doon sentir mu ngi fii 2STV bi moo doon sentir avant le parce que nit déplacé na woo ko ne dama la soxla dama lay wax li xew parce que nit kooku mënul jot ci mu ne ko waa d'accord naa la naa la kii dama xaw jàpp ki nga xam ne moo doon alerté ñëpp moo toog ak man mais bi mu ma koy wax fekk yëf yi dem na ba pare moo tax fi mu toogoon ci Casamance ma ne leen lii tappale la bi ñuy bi ñuy bi ñuy taxaw quelque bëri na exemple yoo xam ne mën naa leen jox ci cadre boobu ma ne lii laa waxoon ngeen toog ba ngeen gis ko le fait que vous soyez un journaliste d'investigation le fait que vous habitiez la Casamance le fait que vous parlez de complot sur l'affaire Adji est-ce que cette étiquette de vous êtes partisan de Pastef ne va pas avoir benn décrédibiliser information yi ngay joxe quelle que soit la qualité est-ce que duñ la jiñ far ndax dañuy def corrélation ah il est de la Casamance donc copain wu Sonko icto facto est-ce que yooyu du indi lompoñ ci xibaar yi ndéem wér wér wérte gi am na ci. dama ci sant yàlla xamul tax xamul tax Ablaye Wade bi mu fi nekkoon bi ma nekkee jeune. bi ñuy xeex ab bi bi bi bi ñuy xeex Abdoulaye euh, comment on appelle Abdou Diouf dañu ne Abdoulaye PS laa bokkoon. Mm-hmm. wax naa leen léegi bi ñu tàmbali émission bi Samuel Sarr ak ñoom Abdoulaye Wade lu ma leen doon dénoncé ci wàllu pétrole bi. c' au profit de Macky Sall. c' était c' était pas au profit de Macky Sall au profit du peuple sénégalais. bi bi ñuy xeex Abdou boobu dañ ne woon mais je veux dire bu nekkoon ci opposition bi jamono jooju. kon da ngeen di xeex Macky Sall mu ngi ci gouvernement bi. d' accord Macky Sall premier ministre. dama lay jox benn exemple coupure de courant yi ba mu méttee ministre de l'énergie moo nekkoon euh, Madické Niang mhm. Macky la nekkoon premier ministre mhm. dama lay éviter le détail yooyu mais ñoom bi Abdoulaye Wade nekkee président PDS euh, Paris laa nekkoon ñoom APR amuñu woon benn journaliste buy wax ak ñoom man Babacar Touré maa doon tàllal sama micro filmer leen di ko diffuser ñëpp ne APR laa bokk tey ji APR su tourné mu ni ci Sonko laa bokk damay sant yàlla parce que man finalement bokkuma fenn parce que taxawaay bii ma taxaw tey Ousmane Sonko bu jëlee nguur gi bu ma gisee loo xam dafa yàq lor sénégalais yi lii daf man bokkuma Pastef hmm. Ousmane Sonko gis naa ko ñaari yoon jàkkaarloo naa ak moom la mooy mësuma jàkkaarloo ak moom mësuma toog ak moom partagé mu. am nga pension quand ma ni am nga pension boo xam ni dañ naan tey bu ñu doon la féetalee am na fu ñu lay. féetalee mais man su ma amee pension man Macky Sall laay amee pension Macky Sall comme jabaram par exemple bu tudd euh, Macky Sall man jël na ma ci. jabaram bu tudd ah <laughs> Macky Sall investigation yi. Babacar Macky Sall dugal na bu tudd nan. <laughs> Mariam Faye Sall Mariam Faye Sall. journaliste investigation yi wax. jabari Macky Sall jigéen wax bu tudd Mariam Faye Sall. Mariam Faye Sall Mariam Faye Sall. ah Babacar ay wax ni. Ah. dafa ñëw Paris du Pape Sy journaliste bu ko jàppale ci benn affaire gars yi ne ko Babacar Touré moo fi nekk mais waa ji moom dafa xaw a dafa xaw a moom dafa xaw a réew hmm. mu ne moom laa soxla dama yendu ak moom toute la journée dugg ak moom Paris Élysée Élysée euh, Élysée ah. euh, euh, comment on appelle la conférence de premières dame yi ñu defoon Paris ak Valérie Trierweiler xam nga ngeen koy fàttaliku man ak Marème Faye Sall moo fa àndoon ñu yendu fa hmm. mu pare mu yëkkati xaalis mu may ma. Hmm. non seulement directeur RTS moom ma yóbbuwoon mu fay ma. mais madame Faye Sall yëkkati enveloppe mu may ma. président Macky Sall dafa ma defal l'honneur man sénégalais Babacar Touré. Mhm. ci ci 16 millions xam nga 17 millions de sénégalais lañu. Mhm. mu invité ma ma ànd ak moom dem Congo dem seeti président Denis Sassou Nguesso. Mhm. donc su ma amee ku may faral Macky Sall lay faral. kon tey loo koy dara li may reproché man ki may li may reproché mooy Sénégal laa bëgg mu am jàmm. waxu la nga ñibbisi ñëw ci wetam. mais Babacar Habib du ma la bàyyee bi et déglu leen lii waa ji nee na man ak Astou Diagne ay naafeq lañ <laughs> Alaaji Ndiaye moo ñu yónni s'il vous plaît Alaaji Ndiaye juróom benn weer ngi nii gisuñu ko dégguñu Babacar Macky Sall <laughs> am na ñu bëri ñoo xam ne moo leen jëlee Paris indi ci wetam yow est-ce que jéemu la xëcc. Ah. pour teg la ci wetam. dégg naa wax jooju sama copain sama copain sama copain nekk Paris. waaw ah. danañu eh, nañu Macky Sall daf ma jëndal conteneur u matériel. waaw ah. pour ma ñibbi Sénégal ma ñoo teg Kéwoulo. waaw <laughs> man Kéwoulo. amul benn doomi aadama benn doomi Sénégal boo la ne ñaar dërëm moom dem na ci. ñaari jigéen man ñoo ma conseil dañ ma gis ñu ne ma Babacar wax dëgg yàlla sa place nekkul fii. Mhm. demal nga ñibbi Sénégal parce que dañu la soxla foofu. muy Adja euh, Fama Diouk. maa ngi koy nuyu de passage mu ngi pari Paris yoonam nekkul ci politique. yàlla nee na yónent bi nee na loolu rek lay dox. di lu muy organ lu muy nekk mooy organisation dem Màkka. jeex na kenn ki sama yaay. Euh, euh, Abi Cissé mooy euh, comment on appelle les marmites les marmites les. mooy les dames la la teranga Sénégal la teranga. les saveurs du Sénégal. xam nga mère ah oui oui restaurant oui oui restaurant waaw ñaar ñooñu. Ah, waaw waaw ñi ma convaincre ne ma da nga war a ñibbi Sénégal. d' accord parce que li nekk ci yow. Mhm. Sénégal dañ ko soxla. voilà nii laa ñibbisee. bi may ñibbisi nag bi may ñibbisi Sénégal xam nga ñaata laa indaale. Mhm. Mhm. bi ma wàccee Sénégal quinze euros laa wàcc si quinze euros muy cinquante mille francais fa ma dem gisi ma lijjanti dem Ziguinchor ba ma dellu si li ma fa am ci samay affaire ma jaay ko ma ñëw mu taaba taaba. lijjanti euh, toog ba ko benn question ci audio yi audio yi. wuy leen ma nag wuy leen ma wuy leen ma wuy leen ma wuy leen ma. amul na leen may cinq minutes rek na leen may cinq minutes après cinq minutes pas plus cinq minutes pas plus cinq minutes pas plus audio yi audio yi cinq minutes pas plus kenn amul droit ngeen déggoo ci question yi nag kenn amul droit enregistré kenn mais bu fekkee ne li ngay enregistré dafay permettre de de déjouer un complot criminel am nga droit nga enregistrer nit bu fekkee ne c'est pour déjouer un complot criminel am nga droit enregistrer nit am nga droit enregistrer nit bu fekkee ne c'est pour permettre l'éclatement de la vérité dans un dossier aussi dangereux que le dossier Adji Sarr encore kan moo enregistré Mamour Diallo agis Adji Sarr moo ko enregistré enregistrement bi ku mu ko doon jox baayam moo ko moo ko ne il faut nga am preuve baayam a Sarr mu enregistré ko yónnee ko Fabirama a Fabirama Sarr moo tax MC MC Niass jot si léegi xam nga yéenaa ñu neen ñu ne leen plusieurs audio la mhm. mais yeneen audio yéen déggoo leen ko lu ci ne yeneen audio yi bëri na ci nekk mais xam leen ni ojo yi bu génnee dana dana yëngalaat réew mi waa wax ñu rek non du ma leen ko wax dama dafa xam la wax la baaxul wax naa léegi non du génn xam nga lu du génn parce que MC dafa doon com communiqué mook Adji Sarr moom xam na ne de l'autre côté Adji Sarr mu ngi koy enregistré moom it mu enregistré Adji Sarr. Mm-hmm. léegi nag su may déglu tey dama koy conseillé bu mu génne audio parce que audio bu génne waa kër ñàkk jàmm dañu fexe ba ñu képp ko pour enregistrement illégal loolu rek la xaar parce que bële moom enregistré donc légalement mënuñu ko toppee dara. mais yi nga xam ne moom moo enregistré Adji Sarr di wax ni. tëdd naa ak diw diw tëdd na ma diw yóbbu na ma li diw yóbbu na ma li te wax dëgg yàlla ndeysaan dañ ci dugal ay kilifa yoo xam ne maar di taal mais Babacar loolu bu mu amee dafa am ñaar yu xew dama gëm dama gëm ni peut-être loolu moo tax a accélérer bi parce que finalement bu fekkee daf ko manqué woon ay éléments pour xam ne lii complot la. Mm. aujourd'hui il a tous les éléments li wane ni complot la. première des choses amoon nañu avocat wu Ousmane Sonko yi am nañu écrit bu ñu yor xam nga écrit bi la mooy les aveux de du de de de l' avocat Gabi Gabi Sow. Mm. bi ne man maa recevoir Adji Raby Sarr 15 jours avant yëf yi. ci ci ci histoire kenn mësul gis nit koo xam ne xam na ni quinze jours dañ dañ ñu war a violer niw nit ngeen préparé ko ne ko demal tel jour nga xaar bu ñu ñëw violer li ngay sol li ngay sol kenn mësu koo gis donc daf on a tous les éléments pour wone la préparation d'un complot donc loolu mooy tax liggéey juge bi dafay facile dafay naan lii lii complot lii tàppale la dossier bi non lieu la léegi bu nekkee non lieu loolu nag moo sonal nguur gi tey. Mm. comment va réagir Ousmane Sonko. parce que ñoom kenn ku ci nekk kuñ ci cité bu porter plainte devant le juge d'instruction il est obligé d'ouvrir une enquête. Mm-hmm. mooy tax ñii ñëpp ñu ci tudd. ñu mën leen am parce que Mamour Diallo bu fekkee ne yoonam nekku ci comme ni ko sama sama sama xarit euh, l'homme du 23 juin di ko waxee nee na dafa fekk nit ku nit lompañ rek mu di ko dimbali bu fekkee ne loolu ñaata sénégalais ñoo fi nekk lu seen yoon ci affaire bi dugguñ ci moo tax nag euh, c'est l'opportunité mu nuyu ko moom El Hadj il n'est pas trop tard de reculer parce que gis ngeen daloon na avance mhm. léegi nee na moom musul tumaal kenn mhm. musul wax kenn violé na alors ko non lieu le juge il est à l'aise parce que ña ca duggoon ñoo ci génn. sans suite. non non lieu non lieu sama carte séjour Sénégal dama leen koy delloo. léegi nag ci sens si boobu lu rafetlu waxtaan bi ñu doon def ak yow ñu amoon nag mbégte lool invité li hmm. fii ci émission encore plus. le mot de la fin bu ko defee ñu libéré la mën a waxtaan ak suñu mbokk taalibe yi aussi. daal di jox kaddu gi. bul bàyyi nag euh, le mot de la fin. Hmm. bul bàyyi dégg xam nga man bi ma ne woon damay bàyyi. Hmm. wallaahi bu dee téeméeri téeméeri appel la am. soixante-dix yëpp. ay këri diine ay ay ay ñu naan moom man maay représentant xalifa tel xalifa bi moo bëgg a wax ak yow man maay représentant Serigne Dioum ay waa kër daara rek ñoo woote ngir yàlla ngir yàlla ngir yàlla ngir yàlla jàppal ñooñu seen appel dégg naa ko damay toogaat incha allah damay continuer li ma bëgg a man mhm. mooy coow yu mel nii coow lu mel nii mhm. yàlla ba mu amati Sénégal ma xamal doomu Sénégal yi nit ki pour nga xam ni jàmm moo jar lu ne. nga ñàkk ko. bala nga ko xam la preuve benn jour rek ñu jàpp nit garde à vue nga nekk ci garde à vue yow mi nga xam ne fu la neex dem fu la neex traîner ngay tourné naan tonton dama may ma saw tonton mais dama may ma tourné nga naan tonton ban heure jot. parce que mënu tu es privé de tout gis nga jàmm. noonu la mel bés boo ko amee ñu on s'en ñu ngi nii ba toog ba heure bi. mais bu dëkk bi takk kenn du ñëw ba heure leneen encore ma wax ko benn xale benn jigéen mooy tuumaal ne dañ ko ñu taal réew mi. mais gis nga bu dëkk bi tàkkoon dëggantaan. dinañu violer téeméeri junni jigéen. kenn du nekk di protéger. sa doom doo fi nekk di ko protégé boo déggee nga génn nga gaare sa oto kenn du ko mbëkk parce que sa oto la buñ ko tojee da ngay dem porter plainte. l'ordre est fini. loolu la ñuy wax euh, yoon loolu yal nañ ci yàlla musal. amiin parce que loolu li koy indi. mooy kenn ku ne mu xam ne lii mooy sama limite war ma ko transgresser. complot bu mel nii dara mënu ci génn. gëm naa ni semaine yi ñu gé ñu jëm. juge bi ma xam Diallo dina ne lii de noo lieu la Ousmane ko lu ñu lee toppee dara du ci dëgg demal sa yoon bu boobaa moom mu jël la mais li ma koy li ma koy ñaan parce que wax naa ko. Mhm. Adji Raby Sarr ab victime la ab victime de la cupidité de ay mag dafa néew doole pour ngeen comprendre ko il ngeen xam histoire am. Mhm. ci condition yi mu juddoo ci condition yi mu màggee ñu koy baagante di ko dënk kër kër ba kër. baayam balaa mu reconnaître Adji Raby Sarr am na huit ans il faut ñu koy wax sénégalais yi. par contre hmm. loolu du raison mënul nekk raison. non non je veux dire c'est quelqu'un de fragile qui a été ballotté de maison en maison. ñu dund la beneen li ah, mais non mais li ma bëgg a wax mooy. mooy musul am. entourage bi nga xam ne xam nga. xam nga ak jigéen te xale la da ngay nekk sa wetu papa nekk sa wetu yaay. nga xam lii baax na lii war naa ko wax lii. mais bëri na ñuy dund lii man foofu laay waxee ñoo xam ni peut-être voilà. en tout cas jërëjëf Babacar lees mën a wax bariwut. Mm-hmm. ndax sàkku am na wala sàkk amut. Mm-hmm. Babacar ture doomi Sénégal la nekk ci réew mi. Mm-hmm. di waxe ci réew mi di tudd ay tur. ñaare danaa nangam sàngam am na diw ak diw ñoo ko def. loolu mooy liggéeyam te tas xibaar loolu mooy liggéeyam. taskatu xibaar. léegi nag ñi nga xam ne dañ koo bëgg a tontu. am nañu liberté tontu ko waaye bu ñu jël saaga wala facilité jiiñ ko dangaa ngaa far wala nangam maanaam bu ma la jiiñee ne la yaa sàcc yaa tuur ñeex mi ci waañ wi indil preuve yuy wane ne nekkoo woon ci waañ wi. loolu la ñuy wax argument contre argument bu ko defee ñu mën a yi yeesal suñuy xel gën koo namm mën a jël li baax xam ñun duñu ay dof nekkuñ ca amuñ ci intérêt. <coughs> wax daal wax dëgg yàlla euh, loolu bu ñu ko defee dina mën a tax. ñaaw ceef yi dañ ci yenn plateforme yu mel ne internet ba ñenn nit ñi di ci yem jàpp ne ndaw yi Sénégal yépp noonu la ñu mel hmm. déedéet am na ñoo xam ne ci kujjeeg politique la ñu nekk wala di régler ay compte personnel bay waxee nii mu ñàkki teggin ñu foog ne ñépp noonu la ñu mel bu la nit attaque ci argument boo koy contrer indil yeneen argument ñu ngi lay sant bu baax Babacar di la gërëm. Mhm. yow ak ñi nga bokkaloon plateau Eva maa ngi ñëw ci yow ñu dem Touba ci kanam. moom dama lay dagaan tontu ma leen ci argument kase man damay teg argument teg ay élément de preuve. Hmm. Hmm. waaw argument ak élément de preuve. loolu baax na mbokku téléspectateurs yi dañuy marqué une petite pause. dañuy waaj a waxtaanee lu ñuy wax modèle économique murit murit yi naka la ñuy defee ba seen dërëm dërëm yi ba mu nekkee ngurdu seen ñaar dërëm yi naka la def ba tabax seen